candidat ci ci élection yu dëgbal. c'est son droit le plus mu ne kenn du ma tere. Karim Wade doon wax kenn du ma tere. parti démocratique sénégalais ma ni xoolal dañ koy tuumaal waaye kenn du ko jàpp ñu ne dañ koy jàpp waaye kenn du ko tëj dañ koy tëj waaye kenn du ko àtte dañ koy àtte waaye kenn du ko du ko daan. gis nga nguuru Ablaye Wade ak nguuru Macky dafa am différence xam différence bi Ablaye Wade mag na ci benn moment ñoo ko doon xeex wala ñu mu doon xeex moom Abdoulaye Wade teew bokk na ci élection ñëw bokkoon opposition bëggoon dem élection yëpp dem nañ ci élection 2012. Mhm. bu ñu demee ba ci biir ñu ne kii moo jël P waaye amul majorité kee jël deux ñeneen yi bokkoon ci élection ñëw ànd ak moom. Mhm. muy Macky Sall tey mu doon président de la République. 2024 mhm. euh, lañ jëm. maa ngi koy wax démb tey F24 seen xeex xam nga lan war a doon. na ñëpp bokk. ni ñëpp bokk mooy ku mën a bokk koo xamee ni yoon tegul sa kaw mm-hmm. koo xamee ni peut-être euh, yoon tegul sa kaw ci ci ci kaw euh, pexe buñ la lijjantil pour yóbbu la ci yoon mm-hmm. mais koo xamee ni yow def nga wala loo xamee ni yóbbu na la ci yoon nangul ni yóbbu na la ci yoon nangul ni daan nañ la ci yoon nangul ni ndax yoon tax na nangam ak nangam mm-hmm. waaye na ñëpp bokk mooy principe ci ci ci ci lu ñu woowee constitution ci état de droit ci démocratie également ñëpp mën a bokk dem dagaan baatu askan mais il a parfaitement raison et il est légitime quand il dit en tant que qu'homme politique mm. mais damay bokk dara mënumaa tere bokk mm. wala kenn mënumaa tere bokk propos wu un homme politique qui aspire à, à être président un jour mais propos également de quelqu'un koo xam ne dafa jàpp ne dañ koy traqué wala dañ koy sonal mm-hmm. mais lii entre waxam moom ak réalité bi mën na am nuance boo xam ne peut-être moom mën na nekk à l'origine de nuance boobu wala mu am jafe-jafe. wala état wala nguur ñu fi ne wala régime bi fi ne posé ko ci loolu waaye lii principe bi mooy ñëpp bokk élection mais pour ñëpp bokk élection nag ci présidentielle am na yu bëri yoo xam ne foog ñu def ko. bokk na ci parrainage bi nañ ko waxtaanee waat. buñ ko waree dindi ko bokk na ci lu ñuy wooyee ay euh, homme politique yu ñuy jéem a wutal ay ndëgg sërëx. ak ñoom seen bopp yi. bañ a dugg seen dugal seen bopp loo xam ne mm-hmm. après dañuy ñëw ne ni euh, dañ maa tooñ alors que peut yow yaa tooñ. Mm-hmm. ba ñu écarté la. wax itam ci daan bi nga xam ne moo leen tekk ci euh, ki nga xam ne moo di leader bu Pastef